waaye lu mën a xew kooku mooy Sëriñ Tuuba ci Ahmadu Bamba radiyallahu anhu wa ardahu yàlla jotale ko tubaab yi ci kaw tuuma yoo xam ni tuumal nañ ko koko ak ñaaw njort yoo xam ni amoon nañ ko ci moom ba tax na ñu jël ko yóbbu ci géej gi biñ ko yóbbu ci géej gi lu ne def nañ ko ko coono bu ne teg nañ ko ko maa ngi lay xamal ne maa yi ko doon teg ñetti na te daanaka ku dul moom mënoo ko dékku mooy ni ko suñ tuwaay nett le suñ tuwaay dul jàmbat day koo xam ne bëgguta wane dafa jàmbat ci wax waaye buy nett li ci dëdaw sekul atuuf de nam koy waxee ci nga yëg ne dañ ko doon teg mett na am na foo xam dafa wax ne wa baada xuruji min tilka aljazira ginnaaw mu tekki ne daxaltu fi jaziratin bi taabin lam yakun asqada minhu xay xayru xuruji ruux nee na ba ma génnee ci dund boobu fañ ma yóbbuwaat teg nañ ma fa coono boo xam ne daj naa fa coono boo xam ne lu ruugu génn ruugu génn ko gën a métti loolu lañ ci wax ko métti métti yi am na feneen foo xam dafa ne wala xaytu fii tilka aljazirati ma la azkuruhu abadan te adduban maa xayri mashkur maanaam nee na foofa daj naa fa loo xam ne du ma ko wax ku yàlla bind ngir teg doxee ay teggi sama diggante sama borom àgg na sax ci wax ne wa duunam ci xaali fitanu kulli mamxuun li kaw ni xaarijan min ahli wa ixwaani wa duyuuri li wajhi man yajuudu li fi kulli mawdiin makastu fihi bil xuyo maanaam fitna ak natt yi nga xam ne moom lañ ma teg natt boo ma xam rek sama natt yee ko féete kaw ndax fa natt ba tàmbalee mooy dañ maa teqaleeg mboolem sama ñoñ sama ñoñ samay sama njaboot ak samay mbokk ak samay kër loolu moom lay wax ci xasidaam xasida asiru ma al abrari wax ne xusuuri xalat wal ahlu anni tafarraqat li wajhi alladi anhu al madihu qasiru maanaam sama kër yi tey wéet nañ maanaam kër yi mu taxawaloon teg fay nit booba yëpp a xaw a gent daanaka ndax fa mu jógee muy mbàkke bari njaboot kam fu bàyyi woon te borom daal moo xam jiite leen ba mu fa jógee rek la ñu jiite woon gox boobu chef de canton yi wax borom daal ne ko daal di ko jógee jógee ci gox bi borom daal ne leen fii dañ fi tàmbali am mbay te mbay mi ñoragut mën na ko fi bàyyi di dem kenn sëñ bi nag nee na ma woon foo mën a nekk ak njaboot bi mën nga faa dem bu dul warul lool sax du ma fi jóg waaye ñu nekk di ko xoqatal di ko wax ne ko dañuy taal kër gi ci sa kaw ak dong yi boo fi jógul bon ndaru dëgër ci ñëw du fi jug li seen mbay mi agut ba mbay ma àggee gis nga dañ ko fa génne mu jóge fa wuti bawon bër yu bari la jaar nett nañ ko ba tey fu mu dem daanaka du fa mën a ne ndax jamono yooyu ku am jafe-jafe tubaab nit ñi dañ la dañ ragal bi ñu ragal tubaab bi day tax duñ la nangoo fat duñ la nangoo jege du cee génne dañoo koo bëggutoon a ànd ak moom déet bëgg nañ ko dimbali waaye tubaab yi dañ ragal tubaab boobu kenn mus ko ñëwee seen tubaab laa ne wa min humu man in raa nasraani yaxsibuhu min malaika rahman ah nit ñi àggu nañ ci tubaab dañuy jàpp ne malaika la loolu lañ daa wax ci tubaab yi naa fedal day fanaan ni màkkaat nag loolu lañ daa wax ci yoo xam ne dara wér ñu ragaloon tubaab te ba léegi si dafa def ci dafa def ci aaday wolof aaday wolof wolof xeet yi tegu leen fenn dama yàlla dégg yeneen xeet yi waaye tubaab moom la yàlla moom la da ko jàpp yàlla maanaam dama yàlla dégg yeneen xeet yi mu dëkkal fii ci réew mi tegu ci kenn fenn wolof dañ leen di woyofal fekk waaye tubaab moom la jàpp ne kooku rek mooy nit aada jooju ne tubaab yi ko jëmbat ci xeli xeli xeli xeli nit ñi ak wolof yi moo tax borom dara boobu kenn wuutoon mu dend ak yow kër mbaa mu jegal gis nga sëñ Xalil Mbàkke ci téere bi mu tuddee góor yàlla gi da ci wax ne si sëñ Saaliw moo ko nekk li ne ko borom Daarul Muxti am na at moo xam ne ci mu sàq la fanaan ak njaboot sëñ Tuubaa loolu mooy xusuur yi xalaat mooy kër yëpp a gent booba wal ahlu an yi tafarraqat njaboot gi tasaaroo nañ ndax boobu mag ñi nga xam ne ñoo fi desoon di ay murit mag kenn ku ne su ne bokku sa morom fa ne dañ leen teqal lii mat xib da di anhu lmadihu qasiru li ko ko teg mooy nekk sax yum sax ci bëgg-bëggu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di ko liggéeyal te mooy ca te bañ caa génn loolu rek moo ko teg moo tax natt yi ko yàlla teg jaare ko ci tubaab yi monsieur fu te gis natt yu mettee noonu ak yu ni reyee sëñ Basiru Cheikh Mouhamadou Basir ci mu nenu bàqil xadim dafa wax ni am na bis am kenn ci taalibe yi booba nee na sëñ ci sëñ bi lañ ne sëñ bi ñett li mbiri géej ak yëkka xew ak metti waay ba sëñ bi da ko daan nett lu bare bare bare lu mel ne tey ñett fan yi mu am Dakar nga xam ne moom ci di gën a metti ci ci moom la bokk ñetti fan yooyu waay xol ñetti fan yooyu sëñ bi da wax ne bu fekkee ne bu ko fàttalikoo du bëgg lu may jëli ngànnaay xeex ak tubaab yi ndax moom neen la ko ci gën a metti mooy bis bi mu àggee Dakar boo da ko fekkoon ci koor ñu dee ba timis di waaj jot muy waaj a dog nee na benn alkaati ñëw woosi ko mu ñëw nee na mu bëma mu ñu dugal ko ci néeg boo xam ne ba mu ci dugg dañ ko bëma ba tax na tànkam dal ci genn weñ wala benn pont boo xam ne dafa dagg tànk bi sëñ bi dafa wax ne ñu ci jësal sa ko waxu sëñ bi dafa wax ne néeg boobee dafa lëndëm ba pare xat ba pare xeeñ xeeñ foofu lañ ko dugal mu faraam loolu nag sëñ bi dañuy wax ne bu commencé na si day wax ne ak lu mën a xaw seeritu moo fa seeritu moo fa mooy tamit métti métti taxut ma seet jotaay yooyu nag suñu da ko daa daa nekk lu bari bari ci mbiri géej gi suñu da suñu dafa wax ne benn bis dafa am muy nett li mbiri géej gi ba àgg ci métti yi nga xam ne moom moo ko doon dal nee na bi ñu ko waxee kenn ci teere yi fi toogoon daal di am lu ko métti lool xam ne cëj ba musiba yi de kenn xamul lu mu doon li daal métti na wax dëgg yàlla métti ba ko mais bi ñu ko waxee suñu daa muñ ne ko shadidun walakin maadallahi min an yakuna lam yaqa fa inna almakanata walxudwata allati mukkintu minha ma kanat li takuna illa bi sababin yuwaziha azamatan ne ko metti na de waaye su amutoon dara du ko jar ndax li ma ci amee ci daraja ak ay may mënutoon a am mënuma ko woon a am lu dul ci métti yu mel noonu ak natt yu mel noonu waaye nag xam ngeen sëñ bi li ma wax ne suñu tubaab lépp comme da koy jàll ak suñu borom moom jëpput ne jëpput ne nit mën na ko teg leen lépp lu ko dal day wax ne suñ boroom moo ko ko teg moo tax mës a am jafe-jafe nit waaye nit ki nga xam ne xelam ak xolam da ko tënk ci adduna si nga xam li muy gis rek lay kanam loolu rek mooy ndem ko ku ko tooñ day jàpp ne nit kee ko tooñ suñ suñ si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu nag moom lu ko mës a dal da koy delluwaat suñ boroom tabaraka wa taala moo tax gis nga ci biir xasida day wax ne man maa ngi àndoon ak ñoom tubaab yi ñu ñu mel ne dañ maa jàpp fekk ñoom jàppuñu asiru maam abrari xiina asiru wa zanna al ida anni hunaka asiru man ñoom dañu jàpp ne man dañ ma jàpp ma nekk ci li loxo fekk man kenn ma jàpp muy suñu borom tabaraka wa taala ci loxom la ne dalla alladi qad dannani asira gayri alladi yuyassiru al asira dalla alladi qad dannani fi gurbati gayra asiri qaidi li turbati maanaam ku jàpp ne jàpp nga ma wala tëj nga kaso ku muy suñu borom tabaraka wa taala nee na yaa ngi ci réer nangu gi mu ko nangu woon nag dogal suñu borom boobu ak muñ gi mu ci muñ muñ bu rafet ak na fa nekkoon ci jaamu yàlla yoo xam ni mu si futa gis yu ni mel ak sellal bu ma sëkk te daray jàmbat musi cee ànd looloo tax suñu borom faye ko ci pay goo xam ni moom ci boppam dara wax ne kawe na njootam moom suñu tubaab te suñu tubaab li seet ko tam bëriwut te daa wax ne li ko ci yàlla fay kawe na joxam suñ mët lañu jóg daga na indi na lu mat juróom-ñaari mbir yoo xam ne sëñ bi daa wax ne daa wax ne sëñ bee wax ne ci li ko yàlla fayee la bokk ci tukki bi bokk na ci mooy xalaba li aada yi qabla fuhuri yi parce que yàlla notal na ko ay noonam loolu kenn la ci xéwal yi ko ci yàlla xéwal wa wahaba li ilman lam yakun min at-ta'allum yàlla may na ko mayee na ko ci xam-xam boo xam ne nekkul ci téere dee su ko jàng mooy al ilmu ladunni al ilmu ladunni suñu borom wax na ci alxuraan ne ñi ñu koy may du bari waaye am na jaam boo xam ne wax na ne mas na koo may abdan min ibadina atinaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman loolu lu neex a dégg la ndax yonente bi alei salatu salaam xam ngeen ne moo jàngale islam sharia li muy réeree xam-xam yi ci nekk yëpp yonente bi ko jàngale te yow yonente bi ummi yu la woon mësta bind mësta jàng boo ko joxoon bind du xam ndey jox càmmoñ bu fekk bu fekk maanaam yàlla mi ko joxoon xam-xam boobu mën naa joxaat xam-xam keneen ko mën doon moo tax suñu ci wax yàlla ko jox xam-xam boo xam ne dañuy ko mën a taawul loolu ci fay la bokk na ci itam baaxa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kull al anbiya bi xurbati asra sinin nee na bokk na ci liñ ko ci faye mooy yonente bi pour ko rewoo na ci kanam pour ko rewoo na ko ci kanam mboolem yonente yi di def ci wax dañ ne man kat am naa ci sama xeet koo xam ne yéen ñëpp yonente yëpp kenn amu leen ko kenn amu ko ci yéen te loolu neen fukki at yoo xam ne mi ngi mi ngi koy puukaroo ci seen kanam loolu lu rëy rëy la bokk na ci mooy xidmat yi lahu fiha al xidmat al xaalisa mooy liggéeyal naa ko fa liggéey boo xam ne bu sell la boo xam ne bëgg na ci xababani llahu taala illa kulli said bokk na ci yiñ ma faye yiñ ma faye mooy képp ku nar a texe di nga ma sopp di nga ma sopp man suñu tubaab maanaam xolu ku nar a texe rek fa nga sopp fa nga bëgg suñu tubaab wa ayyasa iblisa wa kulla laxinin maahu minni naagu loona iblis itam ci man wa xababani ila almalaikati kiram def na itam malayka yëpp ñu sopp ma ci par force ma yàlla leen wax ne sopp leen waa ji ñu bëgg ko ñoom malayka yi wa xababani ila muminil jinni ba ci nit maanaam ñi gëm ci jinne yi ñëpp yàlla def na ñu sopp ma loolu lépp ak yeneen yu bare bari yoo xam ne suñ ma demit am nañu ci indi ne fii ko yàlla xaye ci tukki bi lay bokk